si xasan moomu nag nga xam ne léegi la mi ya naam mu ngi fi woon am na ñu ko daan màggal amaal na ci taasu barke ci guddi gi di ñaan yàlla waaye génne ko def ko defal ko tànt waaye def ko muy jotaay boo xam ne day nuroo comme gàmmu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fanaanee ci waxtaanee jaar-jaari Cheikh yi xamuñ ñun ku ko ko jiitu fii ci réew bi sax Hassane Dème moomu nag Fuuta bàyyeekoon ci ndigali sër ci gannaawum génte sëriñam sëriñam faddu di Mawlana Cerno Seydou Soxraaw dem may nuyu sëtam yi nga xam ne jóge koo neen ba keneen def délégation bu bëpp ñëw fekkee si dégg nga jotaay bii nii mu yebal ko ci gént ne ko li nga bëgg di ko sàkku amut fii demal fa jant bi di sooyee ci alxaaj Ibrahima Niass nekkul ci kaw suuf tey ku ko gën a xam yàlla loolu moo taxoon mu bàyyi ko fuuta gàddaay ñëw fekk si Mawlana Cheikh Ibrahima sallallahu alayhi di ut si yàlla tabaaraka wa taala waaye ba mu ñëwee góorgóorlu am mbëggeel am teggin rëj-rëjloo ak góor yu baax yi nga xam ne ñëw la fi fekkoon ba jot càkkutéefam سيرنيام نكو دامين دامين تولك درك المرادي من شيخ ابراهيم دما نال نالا نغا جوت سا تياكوتي حسن ديم سيكون لك شأن عظيم في الطريقة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية يالا دينا فينيال تي يو مبير مو ماغ مبير مو كاوي ماي غو ري تي طريقة جان ديني لول نك باركيك ورلوك سيرنيام نيانام feeñ yàlla feeñal na ko ci laylakat mi gi nii benn la fi woon léegi lu limu la fii ci Kaolack ba dakaar fu nekk ñu ngi koy def kon ñu kooku moom moo oote bés bii nii Cheikh Mouhamadul Kabir nag di tar dalal ay ganam yoo xam ne ganam yu tedd la xew-xew bii nag ñu ñëw fekkee lesileen yi nga xam ne yàgg nañu koo fekkee yaakaar naa bañ ko commencé def ba léegi benn yoon la ma fekk ci tukki ba tardé ko waaye lu may loolu rek musuma ko tardé ndax xam ki ko def kan la ak ki ñu ko defal kan la ak fi ñu ko defee fan la Mawlana Cheikh Hassan Deme xam naa ko bu baax du ne dañ may nettali ay yëfam xam naa ko ci tukki xam ko ci Madina fii daan waxtaan ak moom mu ubbil ma xolam bu baax a baax di wax ak man comme kuy wax ak moromam lépp loo xam ne mas naa lënt ci suñ kanam rek bu ma ñëwee ci moom am ci lu leer nañ lii Seydi Abdou Baqi nettali léegi damaa ñëw fii waxtu tusubaar muy si ko ne ko man dama amee xaraara boo xam ne def nañ lu nekk mënti lay mais ma xanaa dafa am tur yàlla booy sikkar ma ne ko ah am na lu may sikkar mu ne looy sigar ma tudd ko dara mu ne ma xay loolu la yow ñaar fukki at ak juróom-ñaar nga am ngay sigar loolu loolu mun a indi lii noppi ba mu yàgg mu ne eh, yow dara du la daal ndax li ma gisoon dara du la daal lii dafa ziyaara si nii rek di romb waaw daal li ma nettali li ko yàlla waroon yépp te lépp nekk ay dëgg yoo xam ne waxu ko woon ngir may ma ko waxutoon ndam ngir suma teewaay ndax wax na ko ñeneen ci njabootam moo tax lépp loo xam ne dañ koo tëgg ci këram rek incha allah danañ ci teew su fekkoon ne duutoon na Cheikh Ahmad Tidiane sax lañ koy defal waaye moom lañ doon defal sax moom ci boppam danañ ci teew. sëriñ bi président de la république la ñuy nuyu di la sargal di la tatagal ci guddi gu mag yii.

waxuma la ci Afrique mais ci monde bi sax jaaxal na ñëpp mais nag secret bi amul secret bi lii la mooy ñaan yi ngeen di ñaan mbooloo mi daal loolu laa amoon ci li mën a wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa